waykat ba dana woon yaa ñu ko tàmmal bari daan ñibbi fu làmb masaana toll ci moment bii dañuy ñëw nga jox ñu résultat yi kan mooy daan ci diggante Boy Niang ak Modou Lo mbokk yi sëriñ bi dàq seet ci sëriñ si tey moom la ñu toogal. dinaa leen tegal lam waxoon ca combat ball gay Gris Bordeaux ba ne ball gay mooy daan Gris Bordeaux dinaa ko vaar tey dinaa ko vaaraat ci Modou ak ki nga xamante ne mooy Ama Baldé la mu ca waxoon. bala moo ñëw di ñu wax en direct combat Boy Niang ak ki nga xamante mooy Modou naka la combat bi demee Cheikh Abdou Lahad Irada tey bala ngaa nuyoo. damay vaar vidéo yooyu nga xamante ni moom nga waxoon ca làmb yi passé ba pare soog a dikk ñu waxtaanee diggante Boy Niang ak Modou kan moo ciy daan parce que yaa ko tàmmal Sénégalais yi fukk làmb ba moment bii rek Sénégalais yi dañ lay déglu. bala ngaa dugg ci nuyoo bi ma bàyyi la ñu tegal la vidéo yooyu soog a dikk waxtaanee Boy Niang ak Modou Lo. bi dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Gris moom lañ bëgg a xam kan mooy daan li nga wax ci suuf biral ko ca kaw ñëpp dégg kan mooy daan. waaw jërëjëf sëñ Cheikh ci laajaat boobu. dinaa ñëw ci kii daan waaye balaa boobaa dama bëgg leeral seet adduna bépp ñu xam ko xam ni xam-xam na te mooy buntu xam-xam te suñ tubaab daa waxoon ne man xaraxal baaba wala ci wala ci ku yàgg taxaw ci buntu di fëgg bu yàggee da nga tàbbi ci biir nit ki mënoo koo ñaanal ba mu am lu bëgg te seetaloo ko seet googu naa la bëgg leeral ni koy defee ba pare ñëw ne leen làmb ji nii lay demee kii ma daan. bismillah sëñ bi. seet alxuraan indi na ni fa man yastamil aana yajidlahu shihaban rasada am na ci seet goo xam te ni boo ko seetee dalay jox lu positif am boo xam ne dalay jox lu négatif man seetoo ma noonu alxuraan waxaan ne wa bil ashaari hum yastaghfiruun am na ci aar yoo ni loo ci ñaan yàlla may loo ko ci laaj mu wan la googu laa yor gi ma nag mooy al aana an naahi al mutarabis seet la woon goo xam jamono yonente bi boo jàppee yoon di dem bu dee yoon baax na boo yëngalee ñetti wërngal yi ñetti wërngal yoon bu taxaw ci alaana mooy baax na bu taxaw ci annaax yi mooy bul def bu taxaw ci almudarabis mooy nëggandikul bi beneen yoon yàlla nag dénk noonu seet goo xam te ni li ma wax nag dama ko xam leer nañ mooy du ma taxaw place yàlla ndax ba maa yàlla mu xëy bu ilalla li war a xew suba yàlla ko xam waaye nag ci biir xam googu yàlla am na lu mu xamal jàmm ñoo xam te ne lu wér la làmb ji nga ma laaj Balla Gaye mooy daan Gris mooy daan Gris Bordeaux loolu foo ko wér fan ko teg tax ma xam laa ko teg te du ak ndamu nag ndax fa la maa jaa amruna najjaynaa saalihan wallazina aamanu maahu bi rahmatin minna yàlla nee na soo ma ñaanee may la bul ni mukk sama julli wala sama wirdi wala sama naafile waaye na xam ne yàlla la neex li ñuy wax muy dëppoog li waram yàlla rek la sopp jërëjëf ñu bala nga tàggatoo. waaw ñu ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey ñaan ci réew mi jàmm. dem na kenn waxi mag dem na dañ caal faaw jël la am làmb ji am na sëriñ su ne day niil am na sax ñu ne woon làmb ji waaye am na ñu ne Modou mooy daan ginnaaw euh, lamb bu masaana toll fii xel yëpp da daan dem ci si Abdou Lahad euh, Irada euh, tey bala ñëw ci sa butéel bi sëriñ bi combat bi tey combat bi Sénégal yëpp yoon ngi déglu Modou Lo Ama Baldé. Modou Lo Ama Baldé dégg naa ci leeral lu am solo. di lamb doo xam te nit ñi ne dina am. la lamb la ju am waxoon naa ko. bu rek ci benn télévision. lamb la ju am. dafa am ñoo xamante ne nag seet yi ñu seet damaa xam ba façon seet la wala ba façon gis la. wala dafa ne dañuy wax lu leen neex rek. waaye kii nga xamante ni mooy Modou Lo. jamono ji mu wax yow. Mhm. lamb ju boroom suba suba suba ndam la ci loxoom la fi da nekk. waaw yi ko waral nag bu seet la loolu gis la. Mhm. ba des mooy jëmmi Ama Baldé mhm. gis naa benn fas démb ci ci télé bi ñuy wax ni. ci buntu këram la nekk. waaye loolee day loo xam xamante ni lu njóom njóomte lu mag la. ama warul woon fas wi. xàcc la xàcc bu ñu ko waxee mooy diggante cere ak soow maanaam fas yi noonu la couleur ba mooy lu ñuul ak lu weex. Mhm. mais bu doon ngelamu. dina gën a am doole ci moom lool. kon ndax wàllu waxaanam day dugg foofu. Mhm. fas yu mu laal nii. day loo xamante ni fort bi ci murloo lay a jëm. xam ko mën a digal nag. waaye bis bu ñu bëree ba suba boo ñëwee fi naan leeral lan moo tax wutoon laal fas moom. muy lu wér kenn loo xamante ni. Uh-huh. da nga sa bët ñee nañ teg seen bët. làmb nag dama toll foo xam te ni di ci naan nii nii wala naa dina ci man métti ci ñeneen. ndax dafa am fu toll ci réew foo xam te ni. warutuma mais li ma la wax muy lu wér te wér am loo ci làmb loo xam te ni nit ñi te Modou Lo ba fii ma waxee nii nii nii. waaw ndam la ci loo xam ne rek. la waaw loolu moom lu nu gis la lu nu leer la. waaw. bu làmb jaa ba ban bëri ba suba ga. boo ñëwee fi dinaa leeral lan la kii waroon def te defu ko ak lan la kii def ba tax. billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi sali sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa bi kalaami wa bi isharati sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg fi lool te ànd ak wér di kilifa diine ci réew mi ñëpp ak kilifa aada yi euh, alaaj dëgg mm-hmm. làmb ji fu mos a jaar rek. wala luy waaj a xew ci réew mi te sénégalais yi muy seen ite daanañ ci wax. buñ ci waxee yàlla dina dogal li wax mu am. waaye loolu nag doon doon loo xam te ne mbir mu garaaw la wala mbir mu yéemu. wala ci nit ko xamul rek ci lay yéemu. ndax xam-xam. day loo xamante ni. lu yaatu la. ba ci des mooy. loolu lépp li koy may nit ki nag mooy wàllu seet nit ki day xam seet waaw. ndax seet boo demee ci alxuraan alxuraan mu ngi xam ne fa man yastami al aana yajid lahu shihaban rasadan am na ci seet yoo xam ne da nga koy seet tey mu jox la lu positif am man nag yàgg naa wax ne yoruma seet goo xam ne da koy seet tey mu wax la lu baax bu suba mu wax la lu bon seet gi seet gu leer la te mboolem ñu ma ci jëflanteel xam nañ ko baax a baax ndax boo xoolee ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono ba taxaw na bu taxaw ci annaahi mooy baaxul bu taxaw ci almutarabis mooy nëgg-nëggul benn yoon moo tax alxuraan waxoon ni saaxaru ayuni naasi wastarhabuhum alxuraan ne woon ak njibar baaxul képp koo xamante ni day jëfandikoo ak njibar su tuubee yàlla du ko jégal te bu faatoo sawar la dem njibar nag bokk na ci nit ñu bari ñuy feeñ tale wala internet di wootewoo ay tëni xeet dem na ñoo ñooy lëndëmal nit ñi ñaare lépp loo xam dañ koy wax rek day nekk loo xam te ni lu négatif la doon lu baax te yoxtalu saaxiru wala yoxbalu tawbatu ak njabar baaxut kon nit ñi nañ bàyyi loolu bu ko defee boo demee ci alxuraan alxuraan di wax ni xul laa ya'lamu man fi samaawaati wal wa maa ya'lamu xayb li war xew suba mbirum yàlla la waaye nag ci biir loolu nag yàlla am na lu mu xamal jaam bi loo xam te ni saa yu ci jaam yoon wu koy tegtal la yoon wu leer woo xam ni saa yu ci xoolee mbir dina ko gis waaye saa yu ci ñaanee aajo yàlla dina ko saafara suñ tubaa dafa waxoon ne ama dalilu fal imaanu mm-hmm. dëgg mooy tegtale ngëm yàlla ci doomu aadama bi mm-hmm. dalil jooju nag moom la yor ndax boo demee ci alxuraan alxuraan nga wax naan wa bil asaarihim yastaxfiruuna wa fi amwaalihim xaqun li saa'ili wa maxrumi yàlla wax na ci alxuraan ne am na ci heure boo xam te ne lu ci waay seet ma wan ko ko waaye lu ci waay ñaan ma may ko ko bagage yooyu nag moom la yor yooyu nag du yëfi ndaw yëfi mag la waaye nag nit ki soo bu la dara ñoree nga jàng ko tarbiyee ko sonn ci da ci mën a wax loo xam te ne dara du ko dindi waaw liñ ciy wax ci biir làmb ji muy dëppoog li waram insha allahu taala dara du ko din loolu nag li koy waral mooy xam raw xaanum nit ki xam tabiaam ba xam maa yi la wala turaab yi wala xawaay wala naar yi mhm. su ko defee li ñu la ci wax ci biir dara du ko dindi mhm. loolu nag li nu ko may leen kese la bi xadri kaddin taksibul maani fa man talabal wala sahra layaali mhm. ci mitit ak i tartar ak i coono ci lañ amee yàlla nga ndungoo taxawal waxtu yu guddi yi wala dégg euh, tey wax nga ko dafa am waxtu yoo ci ngay seet moo tax boo seetee dara du la rëcc euh, mais sëriñ bi bala ma ñëw sax di xóot ci combat bi dafa am lu sonal doomu aadama yi te sénégalais yi yaakaar naa duñ ko daw muy cat nga ne ma cat moo gën a bon ci doomu aadama te man cat dama koy dindi ci nit ki ba mu dañ ci moom. waaw wàllu cat dañ koy dindi ci nit ki. ba dootu ko mën a yàqal ba du am ci moom benn gàllankoor. ndax cat day loo xamante ne moog doomu aadama ñu ànd. saa yu nit ki am cat wërsëgam dina yokk ubbeekoom dina yokk waaye saa yu nit ki amee cat it mbiram dina wàññeeku ci lépp nag. Mhm. léegi nag li ñuy jëflante ak nit ki mooy dafa ko loo xamante ne cat du ko mën a yàqal. yoon bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni. suulu maa fi xubóor mi ne laa ni yoon bi nee na ceeram ñu nekk ci soo leen xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj cat moo leen fa yóbbu. kon cat lu am la. kon ki ñu seetaan te lépp loo xamante ne da cee dugg mu yàqu. lépp loo xam da ko yaakaar mu tas. lépp loo xam ne da koy mébét te saa yu jàppee war na koo mën a am. mbaa war na caa mën a yegg loolee am lu ko gàntal. moo xam lu mu mën a sàkk lu mu mën a doon. na fexe jokkoo ñu bu jokkoo ñu incha allah bi loolu dina ko ci ñaan mu ndax fa doon la muxlisina lahu diina wala karihal kaafiruun la alxuraan wax mm. yàlla nee na ñaan leen may leen te ngeen bàyyi ñu gëm di weddi mm-hmm. kon christian te gëm ni cat lu mën a sonal ni lu am la mm-hmm. saa yu jokkoo ñu saafara loolu incha allah rabbi mm-hmm. euh, sëriñ ñu ñëw ci lenn loo xamante ni lu soxal doomu aadama yi la tey boo nee nopp nga dégg ku nekk di ci waxee nu nekk mais tey dama gis li may ojo ci ay nit ak li may vocal naan ma santal ñu Cheikh Abdou Lahad Irada moom moo tax ginnaaw yàlla suñu jëkkër bàyyi taxawaalu di tër si heure suñu bu ñu ko laajul sax daf ñuy jox dégg naa jàpp góor ba lu ko jabaram sant mu def ko wala jàpp jigéen ba lu ko jëkkëram sant mu def ko da nga cee amuk jagle muy nopp. waaw noonu moom am nañ ci jagle gu leer guy googu nga nu fekk. Mm-hmm. am na ñu ñuy jëfandikoo yoo xam te ne suñ ko defee nit ki du la bàyyi ilaa yawmi mm-hmm. yu wér la. am na ci yoo xam ne na yoo xam ne ci guy gi leen xànc mm-hmm. def ko. fi ñuy sukkandikoo suñu mbir nag dara génn alxuraan. ndax isa arada allahu sayn astaxmalo la yonent bi wax yonent dafa waxoon ni. nit ki saa yu bëggee saa yu bëggee dimbali boppam. yàlla saa yu nam ma dimbali nit ki daf koy jëfloo. Mm-hmm. kon nit ki nga xam dañuy seetaan te yooyu sonal ko wala mu am ci itte. Mm-hmm. na fexe jokkoo ak ñun. Mm-hmm. ndax laa yukallifullahu nafsan illa wusaa yàlla tegul kenn lu mu mënut. kon li ñuy toog fii di ko wax lu nu man la lu nu xam la. te nit ñi ni seetaan dañ jëflante si ñoom it xam nañ ne. képp ku ñëw ci ñun ci wàllu nopp. ki nga bëgg bu dee góor des na la ko jàppal su dee jigéen des na la ko jàppal ba itte ji nga am ci moom nga am ko ba itte ji nga bëgg ci moom lépp nga mën ko am incha allah rabbi waaw euh, numéro yooyu mooy numéro téléphone Cheikh Abdou Lahad Irada moom nag gis ngeen ko noonu euh, ci àll bi ak ci guy gi yaakaar naa lii ci la nekk bërëb bi bokk na ci bërëb yi nga xamante ni fi lay sampee jaam yi yàlla yi bërëb la boo xamante ni lu bëree bëree bëri ci la koy defee mais sëñ bi mbirum papier ma wax la ko sànq nga ne ma man bu ma ci guy gi tubaab bi gën a soxor boo ko joxoon say këyit ci kàttanu yàlla dana ci def tampon papier tamit bëggoon naa nga ñëw ci mbirum këyit. waaw mbirum këyit moom yàlla may nañu ci ay buntu leer. loolu nit ñu ñu saan ci biir réew ak bitim réew xam nañ ko bu baax. Euh, ndax leen lu ci nekk dafa am yoon woo xamante ni ci nit ki jaar pour mën ko xam. gis nga ñaan yàlla. moo ngi mel ni nit ki dem jàngi daal woto ba mën ko am permis bi rek. Mhm. noonu kese la demee. Mhm. nit nag yàlla mën naa dogal mu am ci gàllankoor ñaan yàlla noonu la demee. Mhm. loolu la ma wax des koy jàng man ko. di ci defal nit ki mu koy gis. nga di ci dindil nit ki mu di ko gis. bu dee wàllum këyita alxuraan day wax ne alaa bi sikirillaahi tatma'innul xulub yàlla wax ci alxuraan ne lépp loo gis lu ne ci ñaan lay jeexe kon këyit ñaan ngeen ci def wàllu xalwatu lay doon ak wàllu sarax moom jàppoon leen ki kurus ñun ñaanal ñëpp ñoom it mu mos ñu leen jox mukk lu sangu mbaalum takk mbaalum naan fi ñu toog leen toog xëcc li ñuy xëcc tu ismilaay ansam fi ñu toog leen toog génneel sarax yi leen war a génneel leeral leen mbir yi ñu war a leer jàppal leen bis yi ñu war a dem seen kër ñu ñu dem te buñ demee def ko ni ñu leen ko waxee noonu ko amee ndax maa faral naa fii kitaabil mission mhm. yàlla dafa wax ci alxuraan ni bàyyiwul dara mhm. ci biir alxuraan mhm. lu tax bàyyiwul dara nag mooy li mu waxoon ni wa yarfa'ullaahu lazina aamanu minkum wa lazina uutul ilma yàlla jël na mbootum alxuraan ak li baax lépp ci jox ko ñooñu alxuraan ñooñu alxuraan mooy ñu ñuy nekk ci kaw suuf di yori di jàngale ak di ko jàng ak di jëfal nañu seen kon képp ku ñu saan foo mën a nekk ci àdduna kayit yoo mën a bëgg ak réew mën a nekk noo ko mën a bëggee soo jokkoo ko incha allah dañ la ci ñaanal loolu nga mën koo am waaw nit ki nag soo ko ñaanal nga am kayit day fekk yow mi koy ñaanal nag nga mën a am kayit bare waaye nag amoo mbir bare bu ko ñaan nit mu mënut satum mhm. waaw euh, sëriñ bi tey buñ ne néew kàttan ñu bëri dañ daan wax naan mag ña mais léegi xale yi ñoo gën a tëlee néew kàttan am na ci produit yoo xamante ni yaa ngi ko ciy def mais am na ci yoon woo xamante ni nit ki bu ko defee ak dundam du ci tëlee euh, ki am jafe-jafe sëy waaw ki am jafe-jafe sëy am nañ ci ay produits yu ñu joxe yoo xamante ni euh, naturel la mhm. nit ki bu la joxee nga di ko maq mhm. dama koy màcc ba mu seey. amul benn effet secondaire. waaye am na ci yoo xamante ne nag moom yëfi mag la yëfi cosaan la moom lu ëpp luy jëfante nit ñi. mooy bi nga xamante ne bu ñu ko bindee da koy boole ak yàpp. ndawal nag. nga lekk ko nga togg ko ñor nga lekk ko yow kese. boobu boo xasee ba ba ilaa yawmi diini. waaw dootoo ñàkkati kàttan mukk. dootoo ñàkkati kàttan mukk ci àdduna ndax. wa nunazzilu minal qur'aani maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'miniin yàlla dafa wax ci alxuraan ni. wàcc na lépp loo ne saafara la. Uhuh. luy loo xam ne lépp njëriñ la loo xam ne luy saafara jàngoro mu ci biir alxuraan. kon alxuraan nit ki ni mu ciy jëriñoo rek mooy fexe ko ah. gëstu xam li ci biir. Mm. bu ko xamee mën na cee jëriñu àdduna jëriñu ci àllaxira jëriñ ci ko neex. Mm-hmm. kon képp ku ñu saan. ngay seq ak soxna. Mm-hmm. di gaaw a yegg. Mm-hmm. wala doo gaaw a jot sa bopp. wala si ni nga yëgee sa bopp neexu la. fexe la jokkoo ñu boo jokkoo ñu loolu suñu la ko liggéeyal ba nga jëfandikoo ko. dootoo naanati doom dootoo naanati reen dootoo soxlaati dara incha allah rabbi waaw ayca mbokk yi numéro yooyu mooy numéro téléphone sëñ mais sëñ bi dafa am loo xamante ni dafa soxal Sénégalais yi rawatina suñu mbokk jigéen ñi des fois nit sëy ci kër ñu koy xaas naan ko andi woo fi doom te pourtant doom yàllaa koy joxe nga ne ma kaay ma wax la secret doom ba jigéen lu mu taxaw taxaw boo ko naanee yàlla dénk ko doom. waaw wàllu am doom moom yàlla dénk nañu ci secret yu leer. Mm-hmm. yoo xam te ne nit ñi ni si daan xam nañ ko baax. Mm-hmm. ndax ba demee ci alxuraan yàlla day wax ni wa ansha an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum mm-hmm. wa ansha an am na ci nit ñoo xam bañ loo xam te ni moo gën ci ñoom mm-hmm. am ci nit ñoo xam te bëgg loo xam te ni gënu ci ñoom mm-hmm. léegi nag loolu mooy ñaar yi yi wàllu am doom ci nit ñoo xamante ni dugg gi ni dugg ci néegu sëy te seetun seen soxna ba xam seen tabian wala seen chiffre wala seen raxan ànd na loolu mooy gàllankoor seen ñàkk am doom ndax xam nga nit ñu bari ñoo xam te ne doon na sëy ci béréb amul doom juga a sëy feneen am doom wala nga xam góor goo xamante ne amoon na soxna. wàcc ci soxna sa takka kenn am doom. kon du ci moom. du ci kee. li muy doon mooy ñaari ñu ànd. dafa am wàllu tabian yoo xamante ne saa yu ànd nit mënu am doom. saa yu la fekkee sa wërsëg yaatoon. dina ko wàññi ba mu suufee. loolu kese képp koo xamante ne da ngaa nekk ci néegu sëy. moo xam da ngay ëmb mu yàqu parce que bari ñoo xamante ne dañuy ëmb. muy turu. waaw saa yu nee ba am ci yaakaar rek ëmb bi daal yàqu. Uhuh. ko defee boo jokkoo ñun la seetalee. Uhuh. ba wax li ci nekk suñ jëflantee. dem sam yàlla loolu da nga ko am muy lu leer naañ loo xam ne alxuraan ju leer la te ci juróom-ñaar na leen koy liggéey su la ko liggéey ba jox la ko incha allah rabbi soo ko jëfandikoo rek sa borom ko mooy jëfandikoo ñeent yow góor ki nga jëfandikoo ki jigéen nga jëfandikoo ñett yi ci des cangaay boo ko sangoo rek bu yàlla dogalee ngay jaxasoo ëmb na ci te baa doom na soso te dina judd incha allah rabbi mbirum xalootu tamit gis nañ ne da koy faral di dugg lu bëree bëri jot boîte vocale fekk moment boobu yaa ngi xalootu wala nga woote xale yi décroché la fekk jamono jooju yaa ngi ciy xalootu. waa jamono jii ma jugee rek ci xalootu laa jugee. Mhm. xalootu moom moo ëpp ci leen ñuy def. Mhm. wala boog ñi ñu xam ñëpp xam na ne sax loolu mooy suñu mbir. Mhm. mooy jàpp kurus. sarax jàpp kurus. loolu xam nañ ko baax a baax. ñu ngi ciy jégul nit ñi ci woote gi ñàkk bañ a jot yooyu. loolu moo koy waral. waaw xalootu moom day loo xamante ne mooy li gën a gaaw ci ñaanal nit ki. xëy na nag doole yi pour nit def ko ñëpp mën na ko waaye nag lenn lu ci nekk ci alxuraan am na solution. mooy nit lum fu alalam toll ci wàllu wërsëgam. am na yoon ko mën a jaarale ba mu mën a satisfaire ba boppam. ba li mu bëgg mën ko am. ndax yoon dafa wax ne al ulama warasatul anbiya yi. borom xam-xam ñooy remplacé yonente yi. kon su la nit ki dénkee wax la ay soxlaam. yëkkat alalam jox la li ëpp solo mooy nga sonn ci ay mbiram. ba li mu bëgg mën ko am. waaw ndax fa la ma jaa amruna najay naa saalihan walazina amanu maahu bi rahmati minna mhm. yàlla dafa am soo ma ñaanee maay la bu nu sama julli yi mbaa mhm. sama wérdi yi wala sama naafila yi mhm. waaye na nga xam ne yàlla la neex nga ñaan ko mu may la kon loolu rek mooy yëf kon ñu nuy war duñ jot dañ xam ci xalawtu la nekk te aajo junu nar a saafara nit mu nekk itte junu itteel dëggit faaw ñu dugal ko xalawtu incha allah rabbi euh, ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, ubbeeku nit ki bëgg wërsëg nit ki bëgg alal dinaa ñëw ci combat ba tey mais nit ki bëgg wërsëg yomb ak xaalis wan yoon nga mën a jaar ba ubbi ak bunti wërsëgam rawatina année bi ñu jëm muy 2024. ñu jëm moom ba ñu koy adat rek xam année bi nu mu toll xam sa tur. adat bi nu mu toll ak sa tur waajur jigéen. am sangat bu ñu ci liggéey wax nag ci diir jamono bi koy liggéey. duma ko wax ndax soo ko waxee day bari ñu koy bëgg te ñëpp mën nu ko amandoo waaye ku yàlla na ma dimbali rek nga war cee mën am soo jokkoo ak ñun des na leer yoonu ngay jaar pour nga mën ko am ndax alal moom inna haasa la risquna maa lahu min nafaadin nit ki li war sëgam balaa faatu dina jot kenn mënu ko tere mu jot ci waaye li ko jot nag mooy ay may ko yitte wut lu ko ubbi di sàkk sarax di muslu di góorgóorlu loolooy tax nit ki man a jot ci wërsëgam nu mu ko neexee te umaami dabatin fil ardi illaa alallaahi rizquhaa yàlla wax ci alxuraan ne nit ki lii ko ci ko ñuy seetaan te wàllu wërsëg itteel la am nañ ci ay cangaay yoo xamante ne yu am solo la bu yàlla dogalee ñu jëflante ci incha allah da nga am wërsëgu yaatu yaatu bu barkeel incha allah taala euh, defoon nga ko ci làmb ji passé defoon nga ko ca làmb ya passé muy saa su combat taxawee da ngay taxaw wax kiy daan Sénégal yu bëree bëri nag fi mu toll ni ñu ngi lay teewlu ndax am na ñenn ñu ne sëriñ bi daf koo tàndatu am na ñu ne déedéet est-ce que nekkul ne dafa am benn mbir moo xamante ne moom lay jëfandikoo mais ñi xam-xam-xam xam nañ ne loo ma wax ci seet dëgg la tey Modou Lo ak Boy ñaa yaakaar naa lamb ji Sénégal yëpp yow rek la ñuy déglu fi mu toll nii. waaw lamb ji Sénégal yëpp ñoo ngi déglu li ëpp ci Sénégal ñoo ngi déglu. Mm-hmm. suñu tubaab dafa wax ne wa an jaaxalakal ahad fa ahrid sim Tuubaa nee bu la ñu créer bay lu mu xamul da noppi te bul ko tontu. kon ñii naan dañ koo tandu. ak it yooyu amul solo ndax tàndutu moom defe naa ci benn layam wala ñaar. waaye juróom-ñetti mbir mbaa juróom-ñeent loolu tandu. wax gi ñu koy waxee waxuñ ko ngir puukare wala dara. ndax falammaa jaa amrunaa najjaynaa saalihan wallaziina aamanuu ma'ahu bi rahmatin minnaa. nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV. waaw tàggatoo bu dul jaax la rek. Mm, saabiqu ilaa magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhaa ka'ardi wala u'iddat lillazina amanu billahi wa rasulihi salika fadlullahi yuti man yashaa wallahu huwal azim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Cheikh Abdou Lahad Irada mbokk yi dégg ngeen euh, li mu waxtaan tey waaye dégg ngeen leeral yi mu def mu nekkoon waxtaan wu am solo nekkoon waxtaan wu am njariñ borom xam-xam la te kilifa la te yaakaar naa yi mu mas a wax ci làmb tamit ni mu koy waxee noonu la wax jee di demee kon da leen bàyyi xel bu baax baax ci ay waxam kilifa gu tasawufee la te kilifa gu ragal yàlla la nitu daara la nitu alxuraan la ay ci mbokk yi ne ma daa ngi noonu affiché képp ku ko ci wow rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp du ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci daraja yi Muhammad Rasulullah